lépp loo yéene Gabriel lépp loo yéene bi ngeen seet ba ñu di xool rek yàlla doxal na monsieur le président Sonko ay bëggante jëf jërë jëf maa ngi nuyu le premier magistrat bu dëkk bi yàlla dogal mu doon sama xarit doon nit ku baax nit koo xamee ni que la nit koo xamee ku am grande capacité d'écoute la nit koo xamee Sénégal jaram na ko lu ne kooku mooy monsieur le maire Wilane ma bëgg ngeen tàcc ko Euh, Ablaye Wilane bu bu situation nekkee mu nekk situation boo xamee ni que pour ñëpp la moom day fàtte boppam xoolal xoolal lu mu sol yére Baay Faal la sol waaw moom noonu la mel il s'oublie Baay Faalu du xamee ni que homme politique yu bare mënuñu ko maa ngi lay sargal di le remercier di la encourager di nangu sa leadership. di nangu liggéey liggéey bu rafet boole benn bi yëpp ànd ak ñoom di liggéey. liggéey bu rafet la liggéey amul par parloo amul teeloo jërëjëf. bépp parti boo xamee ni à commencer par APR PS AFP. PIT LD Yessal ICS Ablaye Baldé